inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin alhabib wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ajjalni bijaayi man duaahum tastajib sëñ Maodo Dieng Xaadimu Xadim ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax di wax ne waxtaan wi de kawe na njortu lool ba jàngee nañ ci lu xamul woon dama mel ne ki doora dal ba tey ci salaatu ala nabi ci yaakaar naa ne man ak sama mbokk yi ma toogal am na yëg-yëg boobu ñuy ñaan barkeb salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam am na mbégte lool di wax ne waxtaan wi li ko taxoon jóg mooy waajal bésub salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam bés boo xamante ni waa képpaangoog salaatu ala nabi ñoom ñoo koy taxawal fële ca Touba boqantul mubaarak saam ci kër sëñ Bassirou kon ñu ngi ci woo jullit ñëpp rawatina képp koo xamante ne day bëggee yonte bi sallallahu alayhi wa di julli ci moom saa su nekk waxtu nekk ñun dañuy fas yéene di ko liggéeyal waa képp bànko salaatu ala nabi ci liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nekk tey suba gannaaw ëllëg képp ku ñëw fekk ñu ci képp koo xamante ne tamit wéy nga rek bàyyi ñu fi kon ñi ngi sant bu baax ci waxtaan wi xam naa di rotal rek jox mbokk taalibe yi ko nga xamante ni am am na laaj bu mu laaj rek ñu mu laaj ko sëñ bi ñu mu tontu ko ñu joxe kàddu yu mujj ñu mën a jotaay bi kon bisimilah mbokk taalibe yi ku ci am laaj rek bisimilah. <laughs> Mouhamed alhamdulilahi rabbil alamin euh, jërëjëf sëriñ ci euh, waxtaan bu am solo bi nga xam ne. andil nga ñu ko ci jëmmi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy kan ak tamit li nga ñu andil ci lu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk loo xam ne képp ku ko déglu te bàyyi ko xel rek yaakaar naa ne di nga ci mën a jëriñ bu baax a baax kon ñoo ngi sant bu baax te ñaan suñu borom mu yàggal sa taxawaay bu baax a baax ci barkeb sëriñ bi xam naa am na ci ay laaj yoo xam ne sax rotoon na ci suñu xel waaye ci tawféexi sëriñ bi mel ni tontuwaale nga ko ci biir jotaay bi euh, su ko defee ñaari bayit rek lañ bëggoon laaj incha allah te loolu itam ñu ngi koy sukkandiku ci li nga wax ci xam nga sëriñ bi bi muy bind Masaalikul Jinaan boo demee am na ay téere yu am solo yoo xam ne digle na ko ngir ñu di ko jàng yoo xam ne téere salawaat la alal nabi waaye comme ni nga ko waxee itam ci mujj bi xëy na bu muy bind Masaalik boobu comme ni ko sëñ Basiru waxee mi ngi toll ci fukki at ak juróom-ñett jàpp euh, juróom-ñeent ak mel waaye ginnaaw bi nag bind na ay xasida yoo xam ne ay xasiday salawaat lan yoo xam ne euh, képp koo xam ne bëgg ngaa julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam julli ba gën a mat julli ba gën a rafet boo ko jàppee mën nga koo am ndax comme ni mu waxee woon ne wajxal salaati hazihi ladayi xayra salaatin soliyat alayhi ñu bëggoon a laaj ñaari bayit rek yoo xam ne Euh, bëggoon nañ ci ay leeral yu nekk ci bidaayatul xidma bayit bu njëkk bi mooy fi sëñ Tuubaa di waxee ni yaa rabbana salli salaatan taftaxu qalbi biha fatxan umuuri yuslixu maa salaamin naa irin yunawiru qalbi wayaatini bihi tabasuru ñaareelu laaj bi mooy yaa rabbana salli salaatan tadfaxu anniya fi daarayni maa laa yanfaxu ma salaamin lii yajuru nafaha dunya wa uxra wa yarumu sunaha ñaari laaj yooyu lañ bëggoon a laaj incha allah mhm. bu fekkee mën nañ ko baamuwaat bi laaj maanaam maax naa mi mhm. laaj boobu mu laaj day laaj bu am solo muy sëriñ bi ci ak njëlbeenam ni mu taxawoon tàmm ci dajale xam-xam loolu nag li ko waral lu waral ñëpp lu lu ñëpp war a xam la mooy ni sëriñ bi dafa gisoon ni xam-xam yu bari ñu ngi àgg ci raaf boobu dafa bokkoon ci politique tubaab yi mooy lakk ay bibliothèque ba ci réew yi lislaam yi bibliothèque yi nga xam ne yu ci bari yu amoon solo la làmb xam-xamub lislaam tàmbali na ñu koy lakk mbënn yi itam di am di yóbbaale lu bare bari ci téere boroom xam-xam sëriñ bi jóg ngir yeesal ko ginnaaw ba mu ci amee ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa ndax leetar boobu ko yonent bi bindoon da ko waxoon ni dénk naa la nga yër téere yi nga xam ne yàlla moo ko wommat jëme ko ci yow ginnaaw ba ca biir lettre ba mu ngi koy tere mbind moo xam ne dafa jëmul ci wàllu xam-xam yooyu loolu nag jotewut ak dara mbindum boppam ndax loolu da doon dajale xam-xam ba ci sax yenn ci boroom xam-xam yi dañuy am jafe-jafe ci buñ bëggee waxtaanee tasawuf dañuy fekk tasawuf bi sëriñ bi doon dajale ñu bëgg koo méngaleeg tasawuf sëriñ bi tasawuf sëriñ bi dëgg dëgg dëgg mooy li nekk ci ay mbindam karaamat yi xattu yi sëriñ bi mbiram mooy mbindum loxoom lee mu doon dajale xam-xam la loolu marxalatu jamal ilmi lañ ko war a tudde dafa nekkoon ci état bu dajale xam-xam bañ mu sànku waaye boppam dëgg nag mooy xaside yi loolu moo waral bindum boppam yamul ak beneen bind e, xasidati faaxat xasaid al kiram wali taqudu abadan xayral maram sama genn xasida wala sama xasida gi di saana ilaahi moom moo kawe xasida yi gaañu baax ñëpp loolu nag moo waral bayt yi mu wax moom sëñ Mouhamed Thiaré te nekk ci bidaayatul xidma yaa rabbana salli salaatan taftaxu qalbi biha fatxan umuuri yuslixu yow suñ borom yàlla na nga julli ci yenant bi julli goo xam ne dafay ubbi sama xol bi ubbi goo xam ne samay mbir da cay far ubbi ko waale ba noppi yéwén maa salaamin naairin yu nawwiru qalbi wa yaatiini bihi tabassuru ànd ak sëlmal goo xam ne ak jàmm goo xam ne day leeral sama xol bi ba noppitam dama ce daal di doxe am basira kon julli googu julli gu mat di baril la ndax mel na ni ku koy baril sab xol dana ubbiku ba nga xam li xew ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha di waxe xam li xew a jafe waaye ku koy julli euh, moom mel na ni di nga xam li xew waaye itam say mbir dana ca ubbikuwaale ba noppi jaare ca yéwén ba noppi sab xol dana ca leere ba noppi jaare ca nag nga am basira ya rabbana salli salaatan tadfau anniya fi daarini ma la yanfau yow yàlla yàlla na nga julli ci yenent bi julli goo xam ne daf may fegal ci ñaari kër yi maanaam lépp loo xam ne amul njariñ waaye nag maa salaamin lii yajurru nafa dunya wa oxra wa yarum sunaa ànd ak sëlmal goo xam ne damay xëccal njariñ àddina ak alaxira ba noppee tax sama jëf yépp ñu nangu ko kon loolu ci bidaayatul xidma julli gu gu mat a julli la waaw julli gu mat di baril la waaw xasida gu mat di baril la tam ndoolu xasida yi boo ci taxawul rek ñaare doo doo do doo bàyyi xel sax ci eh, wax ji ni mu réye ay njariñ kon loolu moom mooy li sëriñ bi wax ca euh, bidaayatul xidma tam bari njariñ te euh, mënee su ko màndaxe sax nag ak ak leneen wala keneen alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin al abari billah wa sallim alayhi wa ala alihi wa barke borom tuba da nga jiital suñuy kàddu sant yàlla da ngi julli ak sëlmal ci yonent ñaan julli googu mboolem ci ay ñoñam ak i saxaabaam tey ñaanal ngërëmal yàlla la gën a màgg sunu jëriñ ja sunu jàmbaar ja Mawlana Al Abdul Xadim ginnaaw loolu ñu ngi ñu fi teew ñëpp tey jii ci nuyoo yi sëñ Maodo di sant yàlla ci jotaay bi itam waxtaan wi moom yaakaar naa kawe gi foo ko natt rek weesu na ko leeraay bi itam moom moom ëpp na ba ni ko suñ jëriñ junjee léegi rek li ëpp ci laaj yi dafa mel ni dafa dugg ci biir Maodo bi kon ñu ngi sant bu baax ñaanal. suñ borom yokk la ci barke borom Touba. xam na li laaj rek mooy ay bayit ci nooru daara ni daan laaj itam mu dimbale ñu ci muy salli salaatan tamla u samaa wal arda yaa man qaadalina maha maa salaamin yataqi lil arsi wa yamlahul kursi yaasal farsi wa yudxilaani bisra fi xalbi nabi sururi kulli axrabin wa ajnabi bëggoon nañ daal ku ñu ci gën a dimbali bu baax a baax incha allah ñu ngi jéglu bu baax ci kàddu yi ni sëñ eh, xaadim soog laaje ci julli gu am solo gi nga xam ni ma ngi nekk ci nuur daare nuur daare nag moom moo ndar képp xaside yépp moom boo ko jàppee jàpp nga xaside yépp yi sëriñ bi bind ndax dafa feeñ ci léppam nuuru su doon ci bind dañuy wax ni moom dafa wàcc wàccuwaayu maanaam encyclopédie ci wàllu julli ci yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne ab mawsu'a la du ab téere waaye ay téere yu baree baree baree bari la ci sëñ bi dajale du jenn wax waaye ay wax yu bari ay sujet yu baree bari ci julli ci yonent bi ay yëg-yëg yu bari te foor la ci sëñ bi dajale nga xam ni nuuru du lenn dafa dem ba tey bu doon sëñ bi da ko tudde ni jeexal tur yi mooy nuuru daare ni fi xidmatil xaami anil aare ni muy mbir moo xam ne salaatu ya ca nekk ni ma ko waxe xel daju ko solli salli salaatan tamla'u samaa wal arda yaa man qaada namaa yow suñ borom jullil julli goo xam ne day fees dell dell dell asamaan fees dell dell suuf yow mi nga xam ne yaa ma indil li nga xam ne mooy ak sax akuk màgg akuk jëm kanam maa salaamin yartaqi lil arshi wa yamla'u l kursiya yaa dal farshi ànd ak sëlmal goo xam ne day dem di dem di yéeg ba ca kaw aras waaye du fa yam waaye dafay fees aras ak gépp yow mi nga xam ne yow yaa moom fépp yow suñ borom waaye du ca yem wa yudxilaani l bishra fi qalbi nabi sururi kulli aqrabin wa ajnabi dañuy ànd ñoom salaatu ala googu ak sëlmal gi dem ni yoxoos ci biir xol bi yonent bi sallallahu alayhi wa di fa dugal mbégte moom mi nga xam ne mooy mbégtem képp ku jege ak képp ku sori xam nga julli googu kenn mësu koo dégg xel itam koo daj waaw euh, kon muy lu am dayoo te am xéewal te am tawfeex bismillahi arrahmani irrahim allahuma salli wa sallim ala sayidina muhammadin jibril al bin nuur asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñeen ñëpp bu baax a baax di jiite ci nuyoo bi sëriñ Basiru Ture mi imaamu daara sama laaj moo di dafa am xadis bu yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ni man salla alayya salaatan waxidatan sallallahu alayhi xashru salawaatin wa xuttat xashru xatiaatin wa lahu xashru darajaatin yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi wax ci xadis bi ne man salla képp ku julli alay ci man yonent bi salaatan julli waaxidatan benn yoon la salla dana julli allahu yàlla alayhi ci ki julli ci man fukki julli wa xuttat te dana ko évancel dana ko raafal xanhu ci moom mi julli ci man xashfu xatiaatin fukki ñaawteef waru fi xatte dana ko yëkkat dana yëkkati moom yàlla lahu di ñeel ki julli ci man xasru darajaatin fukki daraja waaye sama laaj moo di ndax amul foo ci egg ci salaatu ala nabi yàlla mbaa yàlla la maanaam dootul yegg sax ci yow te xaa ngay julli mu la yëkkatil ay daraja waaye dalay mbaa yàlla li yéegal la ci pays yu yi loolu moo di sama laaj. sëñ euh, Fallou Ndiaye nim ko waxe ndax yenent bi li wax ni ku julli ci man benn yoon suñu borom julli ci moom fukki yoon faral ko fukki ñaawteef yëkkatil ko fukki daraja ila axirihi daal di wax ni ndax julli ci yonent bi noonu muy deme mën na àgg ba ci mbaa yàlla nit ki loolu lu mën a nekk la ndax jullit bi lu muy xalaat rek suñ borom mën na koo def ndax yàlla dafa wax ni wallahu yudaaifu liman yashaau fukk yi ñu wax sax yàlla nee na déedéet man maay fulal ku ma neex yamuma fenn ak jàmm bi yàlla li ma wax sànq mooy ku ko gën a baax lay bañ ndollu yow del teg ay jéego rek moom boo séqee ak moom boo mu dox boo doxee muy daw boo dawee mu këf la moom noonu la doxee bëggul ku ko gën a baax moo tax nag euh, da caa teg ni wallahu waasiun alim yàlla ku yaatu la mooy yem yam ma fenn mooy li ngay laaj mi ngi ci biir sëriñ bi waxaat ci masaalik comme ni ma ko waxe woon wa annaha kal itqi fi l ajri kama taqdi xawaaij allazin tamaam nee na ci ak fayam dafa mel ni goreel te mbaa yàlla nag daanaka mooy goreel mooy ki jënd boppam ba moom ko ba nga xam ne maanaam yoonu kenn nekkatul ci moom ndax moom bu dee àjjanaam jënd na ko bu dee sawara la ko fay tax dem tam joxe na njëgg ba doot fa dem waaye nag euh, euh, le Sëñ Saaliw doon wax bo nag day daal di feeñ Sëñ Saaliw da daan wax ne ngërëmal yàlla ki ko am daa neex a xam ndax la ko may du ko bàyyi waaw waaw du ko bàyyi mukk di rafetlu waa jotaay bu baax a baax a baax te Nabi di ziara bu baax sëñ Xadimul Xadim di rafet lu baax te am cant bu ci waxtaan bi bi nga xamante ne moo ko moo ko moo ko doon waaw moo man ñaari laaj rek yoo xamante ne day jëm ci salaatu ala nabi benn bi mooy mooy maanaam jullit jullit malaaka yi nu mu nu mu nu mu demee par rapport ak ñun suñu yos ñun ñi nga xamante ne dañoo takk maanaam ñoom seen bos ak ñun suñu yos naka naka ban ban complémentaire lañ am daal beneen bi mooy. Euh, maanaam ayibu xol ana naka lañ koy mën a dindee jaarale ko ci salaatu ala nabi ñaari laaj yooyu laa amoon eh, sëñ Malick Cissé loolu wax ni li nga xam ne mooy ayib yi nga xam ne dafay nekk ci nit ndax am na yoon woo xam ne da koy dindi su fekkee dégg naa laaj bi waaw loolu sëñ bi wax na ko wax naa ko ci biir waxtaan wi salaatan tajuudu bi xayri muna yazuulu biha aybu nafsin wa ruux julli ci yant bi day maye ngën gi mébét li nit ki di mébét lu nekk da koy may waaye ay bi bakkani nit ki day deñ fi nit ki am na kenn ku ne am na lum gënoon a bëgg waaye loola tey bëggatu ko sallallahu alayhi wa sallam rek la bëgg ku mu dalay wétli ko comme ni yaay sama xarit tam dalay nax rek waaye kii julli ci yenent bi te baril ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xaritam comme ni yaay sama soppee tam dala koy wax rek waaye soppeem dëgg mooy sallallahu alayhi wa sallam kon euh, la maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon rek moo ci am mooy fu waay yam yamale sa bopp waaw daal euh, nañ ko sóobu te itam nañ ko baril ndax suñ borom nammu ci lim ndax zikar kasiran la sant waaw euh, wazkurullaha zikran kasiran waaw nga xam ne euh, wazakirina allaha kasiran wazakirat soog a ñëw kon julli ci yonent bitam tam yàlla daa nam mu bari te itam luñ ko def nii ngeen ko def dafa jo ko mbooloo tam noonu la ko yàlla digle kenn baax na waaye siixa bi muy ñëw ci mbooloo la ñëwee inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi waaw gi waaw jamaa la kon mbooloo luñ ko gën a daje di ko def di ko gën a baril euh, day yokk sawar gi fi mu toll am na ñoo xam ne bu dul mbooloo mi ba tey dàcc nañ kon mbooloo mi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne al jamaatu rahma mbooloo yërmande la te itam amul ñenn ñoo xam ne daje nañ di ko def te yàlla euh, yebalu leen ay malaayika malaaka yooyu nag bokkutoog malaaka yi fi ndool malaaka yi dox mission yooyu bokkuñoog malaaka yi yàlla bu dee taw amul benn pepp taw buy wàcc benn toq te budul ni ab malaaka da ko gunge ba ci suuf kon malaaka yi xam nga ni bari nañ waaye nag malaaka yi ñëw ci jataayi salaatu ala bi yi ñoo leen ëpp fuuf nga xam ni buñ ñëwee fekk sunu jataay bi dañuy ñëw tiim ñu keral ñu seen seen laaf yi dajale ko ba noppi di julli ci ñun di ñu jéggulul di ñu ñaanal ba keroog ñu yëkkati jataay bi kon yàlla na yàlla julli ci yenant bi sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallim tasliman kon day mel ni laajoon na jullig malaayka yi malaayka yi eh, kenn ku nekk ci ñoom am na tur yàlla wu muy liggéey woo xam ni moom lay eh, zikar am na itam xeetu salaatu ala nabi goo xam ne moom la ko yàlla jagleel malaaka nag leer la yàlla da ko bind ci li nga xam ne mooy ak leer du mooy yàlla du jàdd du dem ci leneen nit nag dafa gën a mat malayka ci bu xamee boppam euh, nit buñ koy jàngal kenn du ni ko gëmal sa bopp danga naan ko xamal sa bopp nit day xam boppam du gëm boppam nit bu xamee boppam laxad xalaqnal insaana fi ahsani taqwim yàlla moo bind doomu adama ca nam gën a mate nam gën a rafete waaye su summa radadnaahu asfala saafilin mu delloo ko nag mu gën a suufe ñëpp su fekkee gën naa suufe booba ñëpp mën nañ koo gën mën naa dem ba bàyyi may ulaayika kal an'am nee na balhum adal am na ñoo xam sax bàyyi may ñoo leen gën waaye nit li tax mu gën malaayika ci bindam la nekk bu góor góorloo ndax nit dafa matale dañ ko bind ci li nga xamante ni moom mooy loi des contraires maanaam li ñuy tuddee la loi des contraires nga xam nit dafa boole mat ak matadi malaaka moom ci ak mat rek la nekk du mooy yàlla fi dool toll yi bu ñu fi nekkoon ñoom ñëpp tur yàlla yi mën naa manqué alxafaar du ci bokk ndax defuñu lu ñuy tooñuñu suñu borom tooñuñu suñu borom buñ leen indi woon fii tam suuf du dund ndax ñoom soxlawuñu ab hôpital soxlawuñu lal ñu tëdd soxlawul dara moo tax nit moo gën a mat ci li yàlla bind nit ba mu matee moo tax lu mu def rek day gën a mat moo tax nit ki bu góor góorgóorloo maanaam li sëñ Muntaxa di wax malaaka yi ñooy ay loolu da ko wax ngir woyofal waaye mënoon naa wax lu gën a lu gën a lu gën a bari loolu tam waaw kon nag yàlla nañu yàlla dimbali mhm. ba boole ñu ci ñi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a bëgg te ñuy ci moom maaleykum salaam suñ moom la jàng wala mi sant nañu baax a baax a baax ci laaj yi nga xamante ne tontu nga ko te tontu mu leer yàlla ñu saawar mi ak dégg ak topp di fàttali rek ne le 30 décembre incha allah rabbi waa Képangu salaatu ala nabi ñooyow jullit ñëpp ci bis boobu ñu amal tuba Tuuba sam boqanxatul mubarak di bisub salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam bis boo xamante ni julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp képp moom moo ko tax jóg ñi ci woo mbokk mbokk jullit di wax di wax rek ne di ci ci di woote ci liggéey bi nga xamante ni mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax képp koo xamante ne yaay dégg suñu kàddu ñu ne bu ñu mënoon a neexal nit di ko fay salaire mu julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam dañ koy def ndax njariñ yi ci nekk képp kuy jullit képp kuy doomu aadama yéen yéen nañ la ko xol yëpp fees nañ ndeysaan bu baax mbokk mbokk taal bi nga xamante ni ah, ah, ah, ñoo àndoon fii ñëw di sant mbokk taal bi nga xamante ni ñoo fii Thiès bi leen ko waxee ñëpp dama bàyyi seen yitt yëpp ñëw ñëw fii di sant bu baax sunu sunu sunu caméraman suñu Habib xamante ni moo moo yor moo yor moo yor moo yor ak suñu chauffeur bi nga xamante ni moom àndal ngi koy sant bu baax di nuyu baax soxna joojo mi nga xamante ne mën na ne moo fi teewal soxna yi soxna yi daara ji yëpp yëpp rek ñu ngi koy nuyu bu baax a baax kon xam naa sëñ Maodo dañuy dina jox rek nga nuyoo nuyu mujj soñu mbokk taalibe ak bis boo nga xamante ni ñu ngi koy waajal le 30 dina ci woo di ci woo mbokk jullit ñëpp soññewaale ci bis boobu rek ak mbokk taalibe yi taxawaay ba war a am kon asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw kay sëñ Birima maa ngi dellu di sant bu baax lépp rek ak cant la bu may jooyal suma xol sedd na lool te feex na ndax su ma sañoon de ci lii rek ci lay nekk ba keroog may wujj ji suñu borom. Euh, yàlla nañ ko suñu borom defal xëy na waxtaan yi am na solo lool ci yeneen domaine waaye domaine bii nag moom day ndigalul yàlla te day loo xam ne amul sikki sàkk ni yàlla da koy nangu moo tax jéego yi ngeen def ba ñëw moom sant nañ ci bu baax ka yabal itam fi nun junj yaakaar rek la am waaye lam leen wax lépp moom moo ko dàq fuuf muy sëñ Basiru day sunu sëriñ di ku sopp lool waaw di koo xam ne wax dëgg dafa am wàccuwaay fi nun waaw wàccuwaay fi nun ndax jëmmi yàlla ak xasida yi ak salaatu ala nabi gi jàpp waaw loolu moo tax képp koo xam ne euh, bëgg nga yàlla rek di nga bëgg sëñ Basiru bu baax waaw yàlla na sama borom gën koo yàggal euh, gën koo dëgëral gën koo defal taw tawféex ak mbooloo ñu àndal yépp yàlla leen suñu borom gën a sàmm tawféexal leen Euh, ñuy soññ ñëpp rek ci sunu bis boobu nga xam ne moom ni ko sëñ bi waxe ñu ngi koy amal ci le 30 décembre ci Cham al buqaatul mubaraka di wax ñëpp rek yéene nañ leen yiw wa nga xam ne moom moom lañu moom la ñuy sàkku ndax bis boo xam ne dañ ko jagleel salaatu ala nabi man moom ba ma dalee dund ba tey maa ngi koy soog a dégg waaw kon nag jar na def lu nekk ngir dem fa waaw dafa am biss yoo xam ne moom donte sax nit ki dafa jagadi jar na nag mu jéem a raam ba teg fa tànkam ki mënta ñëw sax jar na mu yónnee mbaa mu yable ndax yent bi sallallahu alayhi wa sallam mën naa am mu teew fa mën naa am mu yable fa mën naa am tam mu mu def fa lu nekk ndax lañ fay def moom lañ koy defal kon euh, lu ne mën na caa am kon nag euh, loola wóorul hmm. fekke ko daal moo moo moo gën ñàkk koo fekke salaamaaleykum wa rahmatullah amina amina wa sallallahu ala nabiyina wa mawalaahu muhammadin wa alihi wa sahbi wa kullu muntamin lahu bil xisbi wa radiyallahu an alxadiimi maa talaamisati bil maxduumi wa wahaba llaahu bihim li muusa xànd ak sëriñ tuubaa te tàggoog buusa inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayyuha alladina aamanuu sallu alayhi wa sallimuu tasliima